la fay gaañ yaa ngi jéem lu ñu mën nag waaye duñu am amuñu sens ma maa ngi foog nag ay téere xam dama ko bëggoon a indi waaye yëg nga ni dëkk bi yéen a ngi jàngale alquran waaye jullit yaa ngi lakk alquran jullit yaa ngi jënd alquran di ko lakk téere bu bu ne fang laa ca yor ak turi ñi ca participer ñëpp am na koo xam ne ki joxe na ci cent million depuis deux mille onze ba léegi ñu ngi koy def ñooñu ñoo wax ni am na ku ca wax ni maxwul alqadaau ala alqurani wa maxwu fi qulubi shabaab nañ fexe ba alquran dootu fi jibe dañ fexe ba xale yi ko mokkal ñu fexe ba ñu génn leen dina loolu ci seen xel am na benn xissa boo xam ni bi mu nga ci Amérique xam naa téere boobu xëy na jot nga ci moom li koy kontaan kontaanoo moo ne mu yëg ni ñu ngi lakk alquran day bég wallahi alam téere boobu dama ko indiwul rek waaye bu ma yëgoon danaa la ko indi waaye danaa fexe ba nga am ci ci xissa boo xam ne bi tabaarakallaahu kon alquran kenn mënu ko fa jële waaye nit ku toll nit jullit jël alquran di gas di sulmbaa di lakk toroxte rek la ko defee nag lii day gën di ñaax nit ñi pour ñu jëm kanam mbokk yi lii sunu njëriñ la sunu njëriñ la wa ida quri rek moo des ah, bi am na waaye insaat bi pour jëfe ko moo des te alquran fii jëfewuñ ko duñu bokk mbokk yi fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka summa laa yajidu fi anfusihim mimma qadayta wa yusallimu waaw am na ñoo xam ni boo leen ne taalaw ila ma anzala allahu wa ila rasuli raayta almunafiqina anka waaw kon jullit bi nga xam ni romb na jàkka ji ginnaaw bi mu fi jullee néewam def fi lépp ba pare yóbbu tribunal atte bi kooku ci kan la su ko katabna alayhim fiha ba mu jeex wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayika humul wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayika humul wa man lam yaxkum fa bi ma anzala fa ulaayika humul alkaafiruuna zaalimuuna mu jeex tàkk ko rek lii yàlla na leen ci yàlla taxaw jullit yi lii moo moo yëkkati Seydina Muhammad mag mu fi nekk te ñu koy tudd tey alquraan a tax ñu di ko tudd waaye askan taxul ñu di ko tudd yaa bunayya yaa bunayya irkab maana ku ko waxoon mu ne sa aawi ilaa jabalin yaasimuni minal mu ne ko laa asima al yawma min amrillahi illa ma rahim waaye waxaala baynahuma al mawju fa kaana minal ba mu ne yaa ardu blayi wa yaa samaa wa ghida ba mu jeex mu ne ba mu ñëwee ni ko inna ibni min mu ne ko innahu laysa min innahu amalun kon askan amul solo askan amul solo tewaat yàlla cëram dellu siwaat teguwaat ci yoon yàlla waxul kenn bul wut àdduna surtout surtout surtout mbokk yi xale yi fi ñu toll dañ fexe ba di leen jox ñu leew yaa ayuha nnaasu kulu min ma fi l ardi tayiban yaa ayuha alladina amanu kulu min tayibaati laa taakulu amwaalakum baynakum bil laa yatayammamul xabisa minhu tunfiquuna walastum gaa ñi ne kenn du ko liggéey dañu koy ko defee nag yàlla ñu yàlla jàppale lii ñun dañ ciy bég fii bu ma fi fanaanu ba bër set fii rek la am aw ma leneen lu dul lii alxuraan toroxul kenn waxul kenn tàllalal loxo li sëriñ Babacar si wax radiallahu taala anhu ba mu ne tarku tasabubi qul min suui ma adabin sabab lu leen tabu leen mu teg ca inna rajaa la fi waadin kada deel teg taloo doog a yaakaar yow nga ni da nga koy doo ko man kaana daa xirfatin fal yuxiha moo gën sàggan dem di tuumaal yàlla mu ngay kaas bay kaas ñiy laaj droit sans sans devoir daru shikaayata yaa xaw mi bila bila amali bu ko defee nag wax ji lu yàgg tàkkusaan jot na waaye lii daal mooy yàlla lii mooy àdduna lii mooy lépp wabtaxi fii ma aateka allahu daaral waaye wala tansa nasibaka minat kon waxul bàyyil àdduna waaw waxul bàyyil ak def ne la nga liggéey boo wàccee dem boo de boo ko toppee itam la Seydina Muhammad wax naan laysa xayrukum man man taraka dunia li ajli alaaxira wala man taraka alaaxirata li ajli dunia bal xayrukum man jamaa baynahuma mbokk yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi jéggalu salaamualeykum